waa bis bi li ko juk moy euh présenter lui sunu programme ak lan moko ko tax a présenter sunu programme et ses services donc euh, ñu organiser une cérémonie de lancement officielle pour que nit ñi mën découvrir sunu programme lan moko ko tax sunu programme vitrine la boo xamante ni dafay dafay fësal bép xétu événement muy événement bu jëm ci walum jang formation yi forum d'emploi y salon yi euh, dafay fësal lépp lu wàllum divertissement loisir manam concert yi ak spectacle yi day fësal lépp lu jëm si événement sportif match nawetaan yeeg match de basket yi mais dafay fësal également lépp luy événement religieux manam conférence yeeg communion et cetera sunu programme day fësal lépp lu jëm si événement sanitaire manam lu jëm si wérgu yaram comme ay consultation gratuite ay distribution de lunettes lunettes ay xeetu événement yi nga xamante ni dina bëri ñu koy organiser mais ñu si ëpp duñ ko yëg euh, dañu utiliser ay ay support ay médias yoo xamante ni c'est dans le dans le domaine numérique donc euh, d'ordre virtuel euh, avons une plateforme pour xam poster ces événement gratuitement Nous avons aussi des événement yi seen yeneen Nous yi poster magazine numérique Moi, un xamante euh, magazine normal mais les réseaux sociaux sont là daw te répertorier les plus événements au Sénégal suñu programme aussi am campagne au niveau de ces réseaux sociaux moy Twitter Instagram Facebook am tamit lu wax web TV bo xamanteni moy présenter euh, le journal des événements ak ay émissions yu ñuy waaj préparer de manière générale c'est ça suñu programme li ko tax a jug mooy fësal événement bu am ci Sénégal.